jërëjëf yàlla na la yàlla fa yiw yàlla taxaw ci biir ak ci biti xam naa dañuy ramasser parce que li des ci waxtu yu bariwul te bëgg na koo jéggi sëñ Kebe jot na fi wax màndargay jullit mooy lan ni ku gëm weddi ne day ci am ci yoo xamee ne moral lay doon muy jukko yi booleek principe directeur yu lislaam mu wax bi gën a simple sax nee na mooy cuubug yàlla gi sibxatallah nee na loolu mooy identité musulmane mu wax jagle identité bi spécificité wu identité boobu mu ne mu lim ci ñaar benn mooy dafa nekk loo xamee ni dafa sax dafa constant bi ci des mooy dafa dal yooyu indi na ko mu wax yi nga xamee ni moo waral agression boobu mu ne dañu bëgg ñoom créer benn euh, environnement bu vide boo xamee ne dara du fa ne lu dul ñoom mu waxaat ci ne dañu bëgg faagaagal walla ñu yuqeel yuqul maanaam ñu dindi li nga xamee ni mooy alternance islamique yi lislaam teg na iqtisaad maanaam l'économie mais ñoom xam nga boo seetee ci monde bi tey am na benn économie bu ñuy prôné muy la finance islamique ñu ngi ci rey seen bopp surtout lu mel ni Angleterre loolu jël nañ ko parce que xam nañ ne am na am na fu mu leen féetee waaye ci des dañu bëgg bu mu am benn nekk alternative par rapport ak seen civilisation euh, kebe nga baal ma nag. yi muy wax fii mën nañ ko def li ñuy tuddee tanzil ala ardi waaqiina nahnu huna mën nañ ko def tanzil fii sunu biir fii fii fii xam nga kilifa gi bi mu gisee Seydi Mouhamadou Moustapha Sy yàlla na ko fi yàlla bàyyi bi mu gisee problème économique yi ak microfinance yi dafa ñëw créer maanaam indi badil indi alternative indi lu ñuy tuddee ce que lu ñuy tuddee synergie Nous évolué ba actuellement dans nga naan alan atar loolu badil la alternative la doo ko coow identité bi ngay par rapport ak li jamono laaj mu indi synergie ñu ne kenn du fi teg identité musulmane sur le plan politique avons évolué en 1993 mu engagé politiquement à Thiès yéen a koy fàttaliku l'an février 93 février 93 ci la génne jël position qui défendre le Cheikh Ahmed ici, nous avons appelé sous suñu premier soutien mouvement de la wax en 93 avons appelé le PDS Nous avons invité ko législative mois de mai mu ni ñu fi nous doon jàppale doon ak Abdoulaye Wade nañ leen bàyyi ñoom ñu dem ci législative yi ñun kooku badil la indi politique muy évoluer ba 1997 mu créé mu indi mu jël adopté pur ñu dem élection législative 2017 indi badil ñu dem élection législative ñu am trois députés Seuls, sans coalition ñu dem récemment élection locale Nous avons des maires et des présidents du conseil départemental serigne bi da doon renforcer l'identité musulmane indéniablement sunu mbokk waxaat la civilisation occidentale a atteint ses limites léegi nag il faut alternative am te jullit bu nekk war nga fexe alternative am ñoom ñu ngi ci liggéey ci wasatiya ñoom rassemblement islamique mais ñun tam ñu ngi ci liggéey ci teg ay outils moo waral parti politique bi moo waral synergie ñoom ñu indiwaat nooneel nooneel gu bari moom la lim nee na nooneel gu yàgg lañu indi nooneel gu yàgg jële ko ci croisade yi nee na bokk nañ li waral ba léegi ñu bëgg a fay identité musulmane ñu teg ci la mondialisation mu ne forme yi forme yi ñuy jalgatee beneen point bi bari na mais bi ci dañuy surtout la presse mais messieurs comment vous voyez-vous un parti qui est allé dans une coalition la coalition a fait des résultats et on est en train de citer tous les partis mais omettre un parti qui a fait beaucoup de choses dans cette coalition comment vous jugez ça dites-moi parti bu dem élection coalition ci coalition mu ci solo mais dégg ñu le pur do dégg ñu parce que dafa melni nekkul or que ni le pur do dégg lool ah résultat man nam waye du mu mel résultat bi dafa landi dafa landi yi mais presse def de comme l'islam ñu ngi koy jëñ l'islam ñu Cheikh ñu ne non buñ ko tudd buñ ko tudd cette manière mais moko ko tudd yàlla tudd nako te ñëpp dañ ko dégg. mom da ko wax allah sidi Cheikh mom dafa ni adab an nabi lu tuddé identité musulmane adab an nabi muni la laa laa ara adaba nabi muzawara aw laa ara hada turasa mahina moom adaba nabi la ko tuddee nee na identité musulmane mooy adaba nabi adaba nabi rek la ko tuddee adaba nabi Il sa culture sa façon de faire sa manière de faire les choses mu tuddé ko an nabi néna bokku na ci ñi def tam ni dañuy rek dañuy def li ñuy tuddé marginalisation mu ngi nak naka la ba ñu préserver suñu identité mu wax ko mu nañu bi ci lay

Berkeley di teg ay ñoom James Brown ak ñoom Robespierre gars yi de xalangu ba ci yàgg muy dugal affaire yi di leen wax ci yàlla ba ñu ñu ñëw di rabbun tabaarak loolu tactiquement la ko def loolu moo tax préservation boobu moo ñëw tey ba ñu ñëwaat affaire bi di évoluer tey ngay déggaat lu ñu naan MJ ak ya ci aju parce que stratégie la bon wax na ne moom Kébé nee na ñu renforcer la personnalité musulmane bokk nañu la koy def waxna na tam ne ñu fexé ba alliance ñukoy xol ñu am dégg ak conscience ci l'Islam, ñu sax ak japp mbokk yi li may tëje bu personnalité musulmane wala identité musulmane bu saxé dëgg dëgg dëgg yalla da lay jox ay Teranga mm-hmm. teranga yi nak moy da ngay dem ba yow sax yàlla da lay may ba loo def rek mu yàlla loolu yonent bee ko wax sallallahu alayhi wa sallam ci xadisul qudsi nee na ma zaala abdi yataqarrabu ilayya bi nawafil xatta kuntuhu ci benn riwaaya ma nekk ko bu la waxee muy jëfee muy man bu laalee muy man yàlla da lay jox teraanga ñuy karaama yeeg waaye karaama yooyu boo ko toppee da ngay dugg ci pureté dangereuse mooy indi link diggante sunu temu tey ak mu démb parce que yàlla mën na la jox teraanga te tàngal la doo ci abusé wu tàngal lay doon moom la sëriñ Moussa waxoon en 1985 ci waxtaan bi mu defoon ñi un prophète un Dieu un Dieu un prophète et une communauté bu ko defee nag loolu mooy waral ba bu personnalité bi identité bi matee rek yow nga nekk jaamu yàlla bu accompli loo ñaan yàlla yàlla nangu ko. loo def yàlla taxawu ko lool laal mu barkeel parce que yàlla moo lay ñëw nekk sa parce que léegi waliyu nga nekk nga aliyewu yàlla loolu moo tax li ñu bëgg mooy jullit bi na jaamu yàlla mat na ay relation am sell lu muy def ci biiram na ko xam lu muy dundale njabootam na ko xam mbokki jullit yi mu nekkal du jëw du wax naka su noonu lu dul mu juum loolu la jullit bi dem ba nag day nek ci kaw asaman ci souf waye nak limuy tuddé al jismu fil hanut wal qalbu fil malakut yàlla nango yàlla defal ñu sant ñep ngeen baal nu xababal nañ waye waxtan wi moo amee solo nonu nim ko defé yàlla nu yàlla defal jàmm defal ko sunu kilifa Cheikh mohammed Moustapha Sy defal ko sunu capitaine rew mi dal kewé li nga wax dañu bëgg politique de valeur bo xamé ni pur mi ngi ko engagé wu suñu mbokk yaangi ci tourné yi yalla ci yalla defal ndam ñepp taxaw ñuy soppi di soppi di soppi di soppi waxu ñu dem palé dé wayé lepp jak assalamu alaykum wa rahmatullah